soxna ayda Diallo Thioune nekkoon na ñetteelu soxna ci kii di Cheikh bi ci ji ñaan yàlla suñu boroom xare ko aljana moom soxna Aida Diallo nag ñëpp ràññee ci ay Berner ak am mbooloo bu takk bi nga xamante ne ñoo koy topp si màggalub ren ji nag dara yemoo ko dibéer ñaar fukki fan ak juróom benn si weerum septembre 2021 soxna si wootewul benn ndaje si région bi di mbuur si gox bi nga xamante ne foofu la yeewee ko muy Medinatul Salaam comme ni mu ko doon tàmm defee si at yu ñu weesu yëpp ab laaj samp si ana naka la nar a def jur yi nga xamante ne jënd na ko ngir màggal gi comme ni ko cheikh bi ci cuun doon defee waaye bu ñu sukkandikoo si chargé communication bu soxna Aïda Aïda Diallo mu ngi ñuy xamal ni soxna si dafa samp ay waañ ci région yu nekk ci réewum Sénégal seddale leen ay berndeel ngir ñu mën a toog fépp fu ñu nekk rek ba bésum Cheikhul Khadim waaye ba tey ci sergent communication bi mu ngi ñuy xamal itam ak mbas mii di coronavirus permettre leen ba tey ñuy woote ab ndaje ngir màggal bésum cheikhul xadim mu mel ni nag canta ñu si bëri loolu gënalu leen ba tax am ñu bëri nara jubali fële sa jannatu ngir teewee fa màggal gi ci wetum kii di sëriñ Saliou Thioune nekk taaw si kii di Cheikh Béthio Thioune nara teewee màggal gi nag fële sa jannatu nekk ci biir Touba mu mel ni rek cantaaku ni nar ñoo rate benn yoon lii di màggalu tuuba